Modou Lo bu baax a baax a baax làmb la xam nga suma rakk la comme ni koy waxee rek yàlla koy di koy ñaan yàlla yàlla ko ndam yi ji bon la bon man mi ñëwoon ci làmb ji xalaatu moon sax ni bon combat bi noonu lay demee lu ma la sax man mi suñu jëm bopp mais damay dellu lépp yàlla si loxo yàlla suñu borom. moom nag yàlla na ko victoire bi jik loolu laa koy ñaanal di fi di di félicité waa Parcelles ñëpp ak bépp supporteram lamb la ku munti daan tam lamb génn Sénégal bokk ndey ñoo bokk bàyyi voilà tout parce que tey lamb dafay te bii dafay continuer bon loolu la mais wax dëgg yàlla bon sant yàlla bu baax a baax aw ma sax fenn fu ma yëg nit na sama yaram dëgg yàlla fenn fenn fenn fenn suma yaram fenn fenn bu jógee ci làmb ji tooxal naa waxtaan ak sama mag na ko lan moo xew nan la combat bi demee mu ne ma combat bi bon da nga daanu moo ko man laa daanu bu bañ a wax ma ne ko eh man góor laa te sportif au niveau laa du ma sportif bu ndaw laa te damay dem ak suma dignité yow laay laaj lan moo xew combat dama kaaw mu ne ma si da nga jël ko kaaw maa ngi félicité Modou Lo bu baax a baax